Дівазі ВТВ, Немірова Дівазі. 17 h minutes fii ci stade municipal bu Ngoundiane saan nee naa leen Bousnaf production moo ñu fi woo ndeysaan ñu ngi lewetoo ñoom ñaar jàppante nañu ñoom ñaar diggante Gandigal ak 72 Kélé attention ndeysaan faq na ko 72 Kélé ak Gandigal attention ndeysaan génn nañ ñu ngi ci ñu ngi peggu saako yi ñu ngi ci peggu saako yi 72 Kélé mbus naa la ware waaye Gandigal Ngunjaan la ware ndeysaan di leen fàttali tey mbus naa production moo ñu fi woo ah troisième jour de la Korité tombek le 4 mai 2022 fi ci stade municipal bu ngundian dem bu nee naa leen bus naa lañu jóge waye tey ñu ñëwaat fi nga xam moy mooy deuxième journée attention ñu ngi bëre ci langue ji Gandigal fàq na ko waaye ndeysaan ki nga xam moy mooy 72 kele de ko waaw gis nga de ñoo ñanté Gandigal de ko ndegeñ ki nga xamantene moy mooy Gandigal de ko ndegeñ ndeysaan de ko ndegeñ ñaari xalé yi dafa melni ni dañoo toloo ñaari xale yi dañoo tolloo ndeysaan jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañu ñoom ñaar waaye ca kaw lañu jàppante rek 72 kele ak euh, Gandigal Gandigal 72 kele 72 kele moo ngembo rabali takk sangoor bu xonq ba ca kaw waaye gandigaan ndeysaan moo ñu jox ginnaaw ni arbitre ate na arbitre àtte na ñaari xale yi xale ñaari xale yi dañoo tolloo ndeysaan ñaari xale yi dañoo tolloo ndeysaan dindi na Senghor ba nekkoon ca bopp ba ca baat ba ndeysaan jamono mu ci mu ci ginnaaw rek di waaj a dugg ci ci lamb ji attention jàppante nañu jàppante nañu ñoom ñaar diggante Gandigal ak 72 clé Gandigal ak 72 Kele Gandigal sukk na jogaat di leen fàttali yéen a ngi seetaan Diobass Info TV ak Phénomène TV jaajëfal leen bu baax a di content ci bokku internet yi nga xamne ñoo ñi sibu nga xamne neen nañ wax kat ki ki ko deglu moy mbokam nuyu ousmane attention attention gandigal mbot nako gandigal mu ko don jema mbot waye ki nga xamantene moy 72 kele des fois bañ jàppante nañu ñoom ñaar ndeysaan ñaari xale yi ñaari xale yi ñaari xale yaa ngi noonu jàppante nañu ca kaw jàppante nañu kaw dafa mel ni ñoom ñaar bëre simple la ñuy bëre fan la ñuy bëre ñoom ñaar jamono jooju sey Sa Ngoudiane ndeysaan dugg si na mu ngi noonu di wis rek am na lu muy wis xaw ma xorom la xaw ma dugub la ah xaw ma ñebe la waaye xaw ma lan la waaye ndeysaan mu ngi wis rek ànd ak champion yu bari dëkk bu Ngoudiane attention fàq na ko Santus Kele fàq na ko Santus Kele fàq na ko Santus Kele fàq na ko so Santus Kele Gandigal Santus Kele ak Gandigal ndeysaan Gandigal nee naa leen Ngunjaan la waree waaye ki nga xamante ne mooy 72 euh, kele gis naa la waree ndeysaan xale yi nee la ñamante nañu ndeysaan attention arbitre ate waat na combat bi ah am nga ñoom ñaar yëpp am na ku nekk avertissement am ñoom ñaar am nañ ah, ku nekk avertissement ndeysaan mu nga lewetoo ñoom ñaar waaye gandigaan mu ngay mu ngay mu ngay mu ngay ram de mu ngay ram ñaari xale yi soixante-douze kele soixante-douze kele ak gandigaan jërë ngeen jëf attention oxo ah, a ko a ah, gen nañ ci saako yi gen nañ ci arbitre ati na combat ba a a a dafa mel ni fekk na arbitre bi soufflé combat bi dafa mel ni ati na combat bi mel ni dañoo mi-temps xale yi dafa mel ni dañoo mi-temps ku dellu na say ba instant na combat bi ñoom ñaar waaw moo nekk waaw ndeysaan bi soufflé waat na combat ginaaw ba ñu mi-temps wet ñëwaat ndeysaan 72 Clé moo ñu jox ginnaaw noonu waaye ki nga xam ne mooy Gandigal ndeysaan Gandi ndeysaan mu ngi noonu xale yi dafa mel ni seen ñaari ngemb seen ñaari ngemb yi dañoo xaw a nduroo ñoom ñaari seeru labar lañ ngemoo ndeysaan 72 keleng moom ngeen jàkkaar lool 72 keleng ngeen jàkkaar lool noonu di leen fàttali le 4 mai 2022 fii ci stade arène municipal bu bu Ngoundiane stade municipal bu Ngoundiane ñi nga xam ne attention attention ah kottu na ko santos ko oho ñaari xale yi dafa mel ni dafa mel ni ñaari xale yi dañoo tolloo dafa mel ni ñaari xale yi dañoo neexoon ndeysaan 72 kele ak Gandigal oh oh 72 kele weer na ko 72 kele weer na ko moytul ma mboot 72 ko waaye Gandigal ndeysaan jàppante na ci kaw oh oh attention 72 kele daan na Gandigal 72 kele daan na bu mbus daan na Gandigal bu Ngunjaan waaw ah, ndeysaan mu ngi koy ñaari xale yi daal ndeysaan ay ndaanaan lañu ay ndaanaan lañu ndeysaan oxo siisu na siisu na xale bi siisu na xale bi siisu na jërëjëf kii mooy 72 kele 72 kele yow dafa mel ni booy bi ah nu mu demee noonu waaw gis ngeen ne combat bee ko laaj quoi bilaay mais c'est que rek kii moom la mooñu boole mais kii du sama zaar quoi du ma zaaram mais combat bi métti na ah mais combat bi mais combat moom xam nga rek ah. lu mu laaj rek su laajee mu gaaw mu gaaw su laajee mu yeex mu yeex. nan nga nan nga pare woon combat bi. combat bi métti na ah. combat bi li ma daj ci combat bi billaay walaay taalaay kii mënumaa tey barki alxuraan. billaay dama dama xam ne kii ma jaar fen mm, mm, mm. barki alxuraan. Ah. ndax man combat bi dama dama cee entraînement rey sama bopp contact ba dee. billaay walaay barki alxuraan. kii mënumaa tey. ci yow Sans Doute Kélé fan la jëm. kan man. Ah. waaw nañ ma jox baab mak bilaay léegi baab maak suy bëree xanaa da nga koy sampal ndenn nañ ma jox baab maak mi daan kati fee démb ah. nañ ma ko jox waaw waaw maak waaw mais boobu njaar dem lay doon ah ban njaar dem mais kan ngay sant ci combat kan ngay sant combat yi maa ngi sant ñëpp di sant sama ménagère bi Daouda Sène di sant sama gars yi yëpp sama supporters yi booy yëpp bilaay aw ma seen fay depuis combat bi mu taxawee ba léegi bilaay booy yëpp ñoo sonn ci man barke alxuraan mhm. kenn toogul barki alxuraan sant naa ñëpp billaay uh-huh. rawatina gaayen boo yi ma bokkal nekk ñoom daaw ñoom saalim billaay xama ak ñoom ibu mafia bi yëpp billaay maa ne di sant bu baax booy dañoo sonni ci combat bi di sant nag waa kër ga wa waa kër Tidiane bayuma kenn billaay jàpp nañ ci combat bi bu baax a baax rawatina maire yi jigéen ñi fa nekk yëpp billaay bi may génn ñëpp jooy barki alxuraan jaajëf kon ñu lay jaajëfal bu baax a yàlla na yàlla fay. jaajëf kooku mooy 72 Kélé. waaw merci. Diobass Info TV nañu wax ak Diobass.